tey suñu jàkkaarloo ak way taskatu xibaar nag lenn rek moom moo ko tax a jóg muy dénoncer ak ñaawlu lii nga xam ne mën nañ koo duppee dil entre maire Kër Massar Nord ak suñu maire Momar Sokhna Diop ñoom fi ñu teg dil nag lenn la benn décret bu fi génnoon en deux mille vingt et un vingt et un boobu mi ngi génn ginnaaw bi ñu defee Kër Massar en département ñëpp xam nañu bu ñu defee Kër Massar en bépp commune bu nekk ci biir département bi ak bépp commune bu ko wër mën naa nekk dina dina am ay réajustement sur le plan territorial te ñun commune Tivaouane Peulh-Niaga loolu daf ñu concerné maintenant nag ba ñoo jël benn décision ci laal commune commune bu mu mënti doon gouvernement bi dina dina dina joxe la nga xam ne ce qu'on appelle un avis conseil municipal boobu pour mu àddu ci avis indi woon fii nag ci Tivaouane Peulh benn avis la woon mooy yéen waa commune commune Tivaouane Peulh-Niaga est-ce que d'accord ngeen ñu yokkal leen Niakrop ak Niakrop extension ci seen commune. vote bi lenn lan woon ñëpp dana voté à l'unanimité oui tay buñ xëyee ba 2022 mille vingt deux ñu ne ñu yéen Tivaouane na len dëgg la waaye wàññi na len ben parti bo xam ci yéen la bokkoon loolu daf ñuy jaaxal trop interpeller nañ ñun war interpeller fi ci gox bi muy le sous préfet muy le préfet ñom ñep li ñu tontu mooy dellu leen seen maire ñun nak am nañ information ni maire Kër Nord mi ngi dugg suñu gox. parti bii ñuy kaas Tivaouane Peulh la bokk amul benn décret buy wane ni bokkul Tivaouane Peulh donc bu fa duggee tey di jël ay impôt mi ngi ñuy tooñ te ñun bëgguñu affronter ak moom parce que population yi benn la bis bu ñu dajewaatee nag le maire de commune Kër Massar Nord muy dugg suñu gox di fa collecter impôt lu fa am rek nañ xam ni waxoon na leen ko bu dee maire Kër Massar dafaa dugg di collecter impôt mën nañ koy mën nañ koy jàppee sax mbiru sàcc ngeen baal ma ci kàddu gi bu ko defee dañ koy porter